combat boo xam yëgu ma ko a lan la. yee man làmb moo tax may entraîné lu metti barki yàlla yee mbas mi mu fi ñëwee ba ngi liggéey lu metti di def di daj tamit ay coono gaa yi ñu yu metti bu ñu jigee fii tamit ngoon dañuy demaat géej teguwaat yeneen coono billaay yaa da ngay sant yàlla quoi est-ce que ngeen comprendre yee amaana tamit ñun ngi fi pour làmb quoi gars yi lu ñu wax rek ñu ngi si ñu ngi seen tànk yee am léegi ay adversaires yu Siteu bu ngor ah day ndellu day lii nangam nangam français la na jël sama avance gis nga seraan nga leen ko si gars yi gars yi gars yi gars yi taxaw nañ see xel yi bëgg nañoo bëre yow de ma la wax rek wax ji sa wax ji bëri mais dafa goo fi dara yee dafa gu ma fi dara amaana bu ma fi defee dara tamit làmb day tëj barki yàlla ku fi defagul dara ku nee di ko laaj amaana man damaa xew quoi yee te bu may xeewi tamit yàlla naa teewaale làmb ji quoi amaana bés dina jot ma xeew yeneen champion yi ñëw sama ginnaaw suñu gox yee ñun loolu la ñuy ñaan quoi bu ñu fi jógee suñu gox yeneen champion yi jóg fa quoi yeneen xale barki yàlla yee amaana tamit ñu ñaan loolu quoi kon balaa may xewi tamit yal naa téye làmb ba tëj ko quoi ba gars xam ne lépp dëgg la yee ñun bu ñu jugee barki yàlla xale jigéen ñi instant dañoo nama oteesu xale yu góor yi tamit même chose barki yàlla ba ni may waxee yow nii depuis avant corona ba léegi ñu ngi dajale seen xaalis di ko def ay kees di ko condamné di xaar sama bis jot barki yàlla boo duggee événement bu rëy la fay doon ki di defar mbaax ni a wecc tam ki di dafay gañ a tam ki di jaay plastique day gañ a wecc tam ki di jaay tisi njaxas bi day gañ a wecc tam ñëpp dañuy gañal seen weccit amaana ñun yàlla loolu la ñu moccaalal quoi amaana duñ si dara tamit yee dañoo judd rek mu neesu ñun dañoo judd rek yee fekk ngembali si biir kër gi amaana tamit duñ dara quoi mais tamit adversaire yi nga xam ne gis dégg nga ñu sànni lay xeer yee li ma leen tontu mooy ñu def tempo tempo rek e amaana ku nekk dina jot kopp fondem quoi e mais mais bu ñu fi xefee xefe naa leen fi bàyyi romb leen lu bare parce que man du ma mbër muy nee fii nii du bëre du bëre waat quoi e man damaa am yoon bu ma nee barki yàlla li may wax ni man moom a gëm amaana tamit sama jëmm ndaw na lool bar naa Muhammad ay kilifa ñoo topp sama ginnaaw billaay wallaay taalaay damay ay kilifa ñoo topp sama ginnaaw adversaire yi la yi yi nga xam ne wax nañ la yëpp seetaan nga leen damaa bëgg nga jaar seen tur nga xoole parce ñoom sa tur lañ tudd surtout bu ngor dafa fe dara da ngaa wax ñëwal ñu may la naa nga mën léegi jàkkaarloo ak ñoom yee seetaan naa ñoom ñëpp ku si nekk di ndaga rek di wax li ma la wax rek mooy micro bi nga yor rek yow ndaga rek nga leen mën a wax la def ndaga non mënu wax loolu doomu de booy laa wax man balaa mu woon gën a mën a neex su ma bëree kii samedi bëree kii dimanche ma teel leen libéré parce que mooy li ma la wax ay kilifa ñoo topp sama ginnaaw barki yàlla ay maire ay ñëpp ñoo topp sama ginnaaw ku si nekk sangoor ba nga am sa biir nekk su ma amee bis dalay jaral nga génn ko pour man nu ma amee ndam yee man mbëru tund laa quoi yee du ma mbëru koñ quoi koñ ñoom mbëru koñ lañ yee man du ma mbëru koñ quoi amee dégg est-ce que ñoom ñu may dégg sa laaya yee man du ma mbëru koñ quoi man mbëru tund laa ba ñetti yee mu leer mu leer naa ñu seet sa ñoom. ñoom dañuy dañuy déglu te dañuy dégg. yee man du ma mbëru koñ quoi man mbëru tund laa te ñetti tund ñoo ma ngemb yee te ñetti tund bu may jóg ñooy jugandoo ngor yoof waxaam te ñooñu kuñ taxaw sa kaw xajuñ sa kaw quoi est-ce que yaa may dégg ñu ce ñoom ñu may dégg sax laay wax quoi te dañu dégg sax yee ñu ma xam ñu dégg moo la ñu ñàkk dégg bu ñu ko déggu seen morom dinañ ko dégg dina leen ko jottali quoi yee man kuy bëreek man say mbokk nañ jóg quoi te amaana tamit da nga su may ñëw mbër mi mooy ñëw quoi man sama bis kenn du moo koy yaaxal yee man nañ toog guddeeg bëccëg mais sama bis bu jotee sama bis la quoi yee li ma fay demee man maa koy may sama bopp soo ma ko neree yaaxal dama lay seppi tegee la nga le yee kon ñoom li ñuy doxee man doxee ma noonu quoi maa ngi dégg booy bare ñuy wax yee ku si mel ni ay ménga mboor ñoom ñëpp ñooy wax amaana tamit làmb moo demee noonu quoi ménga mboor moom bu muy yàlla xam na ne ba may dem stade yee dama daan dugg mbalit Moro barki Serigne Touba amaana làmb moo demee noonu quoi dabante la yee ba suma tur fekk soo ko si kawam quoi moom ba muy bëre laa man maa ngi doog stade si biti di xaar ñu ubbi stade bi man doon xale bu ndaw di dugg ñoom seen gox boobu ñuy bëre ñoom mbay xadaar ñoom ñëpp ba ñuy bëre man maa ngi dugg mbalit yee mbay xadaar moom sax doxoon nañ suñu combat yoof amaana tamit yee mu yàquwaat te boog maa ngi nekk si tund bi rajaxe fépp mbër mënu ma daan yee ñuy uti mbër bu ma daan kuñ indi ma daan ko ñoom ñu dox suñu combat nga nag moom mu yaaxuwaat guddi ñu toll nii moom moom dafa am rakkam boo xam ne dafa taxaw temm caaru jolof deux combats deux victoire moom gis nga moom li mu wax mooy bépp booy boo xam yaa ngi wax mbay xadaa bala ngay àgg si mbay xadaa ñëwal ma ko woon sax yee booy ñoo ma koy jootali rek ne ma caaru jolof nangam ma ne ko yee man li may wax rek yee amaana moom day xeex day bëri yee ñun fii fi la xeex bi rek bu baax waa yee ñun boo seetaanee suñuy vidéo sax ñuy xeex sax wala ñuy entraîné xeex sax doo mujjee bëreek ñun da ngay mujjee teggi loolu waaw barki yàlla yee amaana ñun laataa ñuy bëre dañuy def lépp dañuy xeex dañuy def lépp ñun suñu amee combat xeex bi la ñuy gën a liggéey sax kon boo na ma xeex day mën ni ñun suñu grand place suñu toogaay nii dañuy teg suñuy gant jékki-jékki rek takk dóor dóorante jaabaat jog comme comme comme yaa ngi wax Thiatou mooy am na moromam bu fi neew quoi su bëggee ñu jox ko est-ce may dégg liiru mu ngi fu quoi su bëggee ñu jox ko Ibu Diop tamit mu ngi fi caatu ngor moo ngi fi yooyu ñooyu ñëpp ay moromam lañ sama morom la sax mais amaana tamit yaa dama ko amaana deux ko la def ma def deux combats quoi yee mais dama ko ëpp tur dama ko gën a xew quoi. laa la wax de. yee te lii làmb di laaj man maa koy gën a joxe quoi booy Mombaay bi maa ngi koy dégg sax mu ne ñu bàyyi ko ambiance bi loolu sama yëf la. yee pour ñoom. daara de borom jàmm xam ma jàmm gën ku leen xam ku leen xam-xam leen ci ambiance caar jolof bu jógee jàmm gën ñëpp ay jóg si ka mbaaw. yee ay jàmbaar lañ man damay am bis yee ay nit di jógee ba jàmm gën di ñëw suma bis barki yàlla te ñoom bu ñu ñëwee dañuy xam li ñu fiy fekk ñoom bu li ñu fiy fekk mooy lan li ñuy wax mooy ndeysaan la ñuy wax quoi parce que man bu ma jógee rek barki yàlla dañuy ambiance ba mu saf yee man ambiance du ma su moroom kenn diggante Caar Jolof est-ce que pare pour Jolof parce que actuellement ni moom lekk na avance mais problème adversaire la am Mbaye Yékini moo ko tëgg. yee mooy li la wax rek. a yee amaana ay moromam ñun fi quoi naan man ak moom quoi sumu bët maanaam. non du cadre da mais sama plan de man booloo moo ko si quoi ay garam laa si boole pour ay garam tamit ñu teel ma bàyyi xel quoi xam ne seen biir laa jëm ba romb leen ne Siteu gars yi leen la Siteu bu ngor euh, lu nooy lay wër quoi boo booy tàngi boo du leen du leen booyoo leen booyoo leen ci programme am quoi. yee xam nga làmb mënoo daan ñëpp yee làmb boo si nekkee sa génération da ngay daan ñi ñi daan la yee nga gis mbër teg la 20 victoire wala 14 victoire kon Modou Lo ni mu nga gis loolu am déet da daan ñi ñi daan la yee kon mënoo da ngay daan say morom dem baa leen fa dem seet dabu ñeneen quoi. yee man sama plan de la taxaw foofu pour le sang foofu la quoi. actuellement yow yan adversaire yoo xam ni à part Siteu euh, bu Siteu ak euh, bu ndaw bi nga xam ne doxoon nañu seen combat ba combat bi taxaw yan adversaire yoo xam ne tey buñ la see nii pare nga pour man ma la wax rek sama mbokk lu ñu wax pare naa mais keroog dañoo toog ñoom ñuy waxtaan damaa taxaw di leen déglu yee amaana fekkoo ma ko sax ñoom gisu ma ma sax damaa toog ñu di leen dégg ñoom ñuy waxtaan seen biir naan man war naa mën a bëree ak diw ak diw ak diw ak diw. yee ku si mel ni Mor dégg naa ko si. yee ak booy boobu nu mu tudd. moom tudd na seet nañ ko mu ne moom moom boo ñëwee may la sens parce que sa wax ji moo bëri rek. waaw comme ni ma ko waxee rek man tamit moom sens la wax man pare naa tamit pour may ko xaas. yee parce que moom sens la wax man pare naa pour may la xaas. yee bés boo paree nag man naa yee man ëppuñ coodin ba daan bi rek laa koy dundee. yee bii yee bii njool bii njool mi la de. ma yeegul njool quoi est-ce que yaa may dégg yee kon beneen booy bi tamit maa ngi ko siy dégg alliance Balde. moo ko jël 4 kaw. ndeysaan. 4 man maanaam door ma ba may raam man su may dee sax li may jàpp ne man xaw ma defet quoi man ndam rek laa xam man dóor garaawul quoi man dóor ma fu ne garaawul miis naa ko ba pare encaissé naa ku yu ne si mbayaare si lépp yee maa ngi tamit beneen booy nu mu tudd kee kii mujjee bëri arène nationale ba liis la mujjee bëreel kee général bi général bi waaw man pare naa pour dindi garaat boobu si moom garaatu général bi barki yàlla boo dindi général foo koy takk bu nekk sama garde corps xanaa naa loolu barki yàlla booy dañuy ndaga rek yow non loolu bëgg xool ko kook moom parce que loolu du man ak booy dañuy ndaga rek booy dama leen a gën a tarbiyu làmb dama leen gën a dund làmb yee ñooma mag bari sëriñ Saalum Mbaake ñoom mag fuuf mais man bi may dugg si làmb di bëre ñoom bëree ñu. yee man Kerala waaw bëgg nga wax ko ko nga wax ko ko en direct yow ak moom nga wax ko ko. général Kerala laay wax. amaana yaa may dégg yaa ak say mbokk yaa may dégg seen yaa soo ma déglu da nga may dégg soo ma déglulee da nga may dégg jëlal sama avance ñu bëre barki yàlla ma defal la yee la xal di defal mag yee jofal la waaye bu na nder sax. barki yàlla. tekk takkal ko beneen grade bi kay loolu laa bëgg maanaam dama koy teggil garaatu général bi dama koy dindi def la sama garde corps. yee ngay bu bañee. si corosement ngor bi laa koy teg bu gars yi tëddee mu leen sécurité loolu mënu ko bañ loolu par force la su ko bañee dama koy biij booy yow mooy loolu booy dañuy ndaga rek bilaay booy man dama leen man mais mais bu ngor alliance bal bi nga xam ñëpp dañ ko fee bàyyi ah ndax ay dóoreem ah, mën a bëreem côté mobilisation bu jógee Pikine jóg ah ah nga ne nañ la ko jox pour pourquoi Alliance Baldé. yow man ngay waxal de bu dee wàllu mbooloo yee li ma la wax rek amaana dañoo judd borom bi mooñoo ñu ko quoi barki yàlla man mosuma dugg si biir stade muy sama mbabat sama première mbabat ba fi ni ma mel nii mosuma dugg mbar appelé ma mbooloo si biir te mbër mu nekk bokk naak moom géew mbër mu nekk bokk naak moom journée mbër yu bare ñu maa dégg ñu ngi leen dégg si làmba yi seen tur sore na lool bokk nañ journée ñoom ñuy bëre grand combat man yee sama première mbapat laa bëre premier combat yi si des yëpp ay spécial laa ko bëre te samay grand dañ siy bëre man maay bëre spécial yee parce que man bu may ñëw rek am na lu may ànd mbooloo may àndal boo xamante ne yee man bokk maak mbër yeneen ni quoi ñii di toog ti micro yi ne ma ñoom mosuñu daanu mbapat quoi yee man daanu naa mbapat parce te eh, ba ma daanu damaa dafa ma ne man maa daan quoi ba drapeau bi ma daanee sax ma maa ko ñibbiwaalee barki yàlla xam nga loolu moo gën a yéeme lépp yéem nan bu may jóg mbapat tey ma ni mbër mu mag mooy jóg ngor barki yàlla ñëpp dañuy jóg carré yëpp dañuy tegu ma ni mbër mu mag mooy jóg di dem bëre gi arène yëpp dama leen dugal ci pot ma yëngal ma yëngal nga génne ma ñaar ñoo xam ne tey buñ la seetsee pare nga pour bëre ñoom yée man pare naa pour lamb barki yàlla man adversaire yi nga yëpp génn si ñaar. man su ma génnee si ñaar su ma amoon lu ma gënal damay baar damay romb ñooñu dem seet li leen gën a kawe sax barki yàlla pour wane na man pare naa. la nekk si traversé sexuar la nekk yaa ngi dégg pour nga jàll foo jàll nga jëlee ba pare léegi wax si ñaar. day neex. day neex kan barki yàlla. yee combat boobu damaa xam ne ne lu garaaw laa say gis barki yàlla damaa xam ne dama koy jàngal bëre ba gars naan cam. naka di booy bi lii la man billaay wallaay taalaay maas amaana gaa ñu ngi ne ci micro yi di ndaga rek billaay wallaay taalaay bés bu taxaw stade di bëre dinañ ne kii nii du nekk barki yaa général Kairé à part général Kairé ak ban adversaire ngay génn bi nga fi wax yee à part ba léegi mën na nekkee noonu lu tudd booy pikin bi kay nu mu tudd bëgg sa bopp ba mu leer ba ñëpp xam ne yaa booy Pikine bi ñu fi tudd léegi rek ni mu tudd waaw kii nga wax nag mooy dóore ak ñamu jot a dóor kooku mooy dóore de liste moom liste am la yor ñu war a dóor waaw mën na nekk rek moo rëcc moo ci liste bi waaw nañoo boole ma si man maa ngi nii bëgg naa ku ma dóor de ndaxte olof nee na boo bëggee jooy da ngay tooñ ku la man man dama moo mën kon waaw pour l'instant nag jàpp ne moom man mais bés bu taxawee moom muy waaj man may waaj boobaa kenn mënul sa moroom ba arbitre sifflé ba ku nekk daan sa moroom ñuy xam kan moo man yee te man gëm naa ne yàlla xam na ne booy ku si ne dem lay jàngal nu ñuy bëree. Niass Balde ak ak général Kayre ñoom ñaar nga soxla léegi xool leen nga yóbbu na parce que li ñu mënti wax ñu ngi jëm ci pandawal bala ngay ñëw ci sant yi ak gërëm yi ndax ku wax mbër mu ndaw wax ñu koy jàppale rawat na tey salle de musculation bu ñu la fekk nii ah macha allah ah, léegi loolu la ngay yóbbante ñoom ñaar la nga leen di yee mooy sant ak ngërëm rek yee ñoom ñaar ñooñu dañoo war a jël sama combat yee mooy ñu xam ko ñu ñaar koo xam barki yàlla yee naka man doomu gox bi laa quoi yee man ku bëreek man tamit yee du ma ne di nga am fooy dem wala dinga am fooy lii mais sa tur dina am fu muy tegu si làmb quoi yee te ñëpp ñu ngi xaar sama combat barki yàlla man damay bëre yee man amaana ama millionnaire wala milliardaire yee man samay gaay laa am sama moroom yi barki yàlla yee ñoom ñoo may jox seen cent franc seen fukki dërëm mais dem di si daan ay champion depuis ma fat ba léegi nag barki yàlla ñoom ñuy dégg lu ne seen cent franc ñu jox ma ko moo leen gën a ñoom ñu féete woo ko quoi kon ñooñu man ma wax si ñoom quoi di gërëm tamit jeunesse su ngor bi yëpp yoof yee amaana tamit ñu may waajal quoi man ñu may waajal bu baax yee amaana man duuma rek dama xaw dondu quoi amaana tamit loolu bu ñu demee ba si kanam la waa la waa di xam quoi man sama maam champion la woon si Ndakaaru daan na mbër mu ne amaana tamit paa yu bare magu làmb yu bare xam nañ ko. sëtu koy jël. loolu la olof wax amaana tamit ñu ngi siy jël par nang nang quoi parce que yaa ngi amaana tamit sant jeunesse su ngor bi yëpp waxaam yoof ama seen fay quoi. barki yàlla man damay am komba sax tali bi gars yi day ma ni ne yow gënu ma xam ne tali almadi bi fii nii mooy Ndakaaru quoi tali almadi bi day xat ndax man sama jëmm ju xeebu gii nii yooyu kon damay jégalu suñu yooyu noonu lépp yee amaana tamit am yeneen bés yu ne suñu kanam quoi yee man combat bi man neex ñëwagul ñëwagul quoi te Ngor tamit ñu ngi koy xaar waxaam ñu ngi koy xaar Yoff ñu ngi koy xaar lépp Yoff ñu ngi koy xaar quoi yee ndaxte ma mbaru tànk laa quoi mbaru tànk boo ko déggee baat baatu tànk boobu si gox si si digg lëbëy la quoi e man mbaru tànk laa ñoom xam nañ ma mbëru tuur laa eh, kon dañ ma teg loxo quoi amaana ñu may teg loxo sax amaana mbas mi lu mu fi nekk rek mais bu fi nekkul woon boo yëpp man romb naa leen barki yàlla di sant gaay nag kon kii ma ubbee rek moom laay tejaatee tamit di sant tamit geneen gaay ñoom ku si ma ni baabu quoi sura moom day sonn si man quoi barki yàlla day jël alalam di ko def si man Eh, amaana tamit yombul quoi man li may wax rek man fit bu ma am wala sañ-sañ bu ma am ñi ñoo ko def si man yee eh, amaana ñooñu ba may xale lañ may jàpp du ma dóor suñ ma dóoree ba ma tas ñu may ma ndox man naan ñu jàppaat dóoraat ba tas maanaam dóoru kekkantoo quoi ku dóor jox sa moroom yaa eh, amaana loolu moo may jom tey ma fit ma am sañ-sañ góor ma jàpp góor bu ma taxawal du ma sa moroom quoi mais amaana tamit di sant kii mbay bu baax a baax a baax a baax di sant gaay yëpp barki yàlla di sant ngor ñëpp di sant képp kuy mbëru ngor yee di sant képp kuy mbëru ngor maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp yee billaa di sant waa saal bi di sant sama coach bi bu baax a baax moom day daj si man ay coono yu metti barki yàlla yee saa yu ñëwee ñi lañuy ñuy daj quoi amaana tamit yee yombul quoi billaay te affaire it ñu ñu ngi si saa su ne Eh, moo xam mbas mi day dem wala mu ñàkk dem mais ñu ngi si quoi mais ñu ngi ñaan mbas mi dem eh, di sant ngor gépp du ma taay di ko wax quoi di sant tamit waa xate xel bu baax a baax xate xel man ama seen fay eh, man dañ maa dañ maa yóbbu géej barki yàlla pour utal ma gaal dig ma gaal lépp ma bàyyi loolu noonu lépp ne làmb laa bëgg quoi kon dama si daw ba jeex du ma du ma si daw dara di sant tamit ki gérer borom saal bi maam Balde Sall maa bu baax a baax lépp moom la bu ñu ko bañaloon tamit du neew quoi te damay ñëw fi ñu may tag ay coono yu méttee méttee métti métti barki yàlla ngooñ ma demaat géej ñu tegaat métti métti kon maam Balde maam Balde ñu lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal nga yàgg fi lool te wér maam Balde Sall ñu lay ñaanal bu baax baax ak Moussa. ñu leen di ñaanal bu baax a baax di ñaanal sama grand taala borom Touba Pono eh, di ko wax na ne tamit foofu la quoi ñu ngi gis jàppaleem di ñaanal tamit sama benn yaay maam Sophie borom Saara bitik ñaanal bu baax di ko wax na foofu la quoi ñu ngi gis ay ñaanam yee di ñaanal tamit sama grand taala yee sama grand taala maa ngi koy ñaanal bu baax a baax quoi borom Touba Pono barki yàlla amaana néew Sénégal quoi mais maa ngay ñaanal bu baax bu baax di ko ñoo gis jàppaleem bu baax si ñun. billaay di ñaanal sama benn grand vieux bu nekk Espagne mu may jàppale bu baax barki yàlla day sonn si man saa su ne damay jox ay conseil yu ne barki yàlla mënoon naa mënoon ne kii mbër mu ndaw la rek garaawul quoi amaana mbër mu ndaw dafa metti quoi mais ñun xam nañ suñu biir quoi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm mbëri ngor yëpp. di wax na fils de Ibna ko gars jël quoi gis nañ barki démb tamit la mu def sa gaam bi quoi bëri na fa lu rëy daje fa ak naanaan Forus tegal ko lu metti sax kon na ko gars yi jël quoi fils de Ibou mu ngi si làmba yi di bay waaram quoi na ko gars yi jël na ko champion yi si làmb yi jël ndaxte moom nekkul mbër muy ne fii di taxawaalu quoi di bëri ay premier combat yooyu noonu nañ ko jox si grand combat mu bëri gars yi di jégaluwaat lépp luñ fi wax te rek. ñuy jégalu bu baax a baax a baax baax a baax di wax na fii la quoi fii lañ ko doon defee waaw seen émission tele bi seeti mbër SBT média yee ñun ragalu ñu loolu waa SBT benn doonu leen dara yee dañoo génneel te ba léegi doon nañu dara mu topp suñu ginnaaw quoi yee amaana tamit da ngeen a baax quoi yee yaa ngi la ñu yàlla dafa jaama bare bare bare yee di sant sumu waa ji mbay iPhone waaw muy nii damaa dóor iPhone de man amaguma iPhone de. mbay iPhone ku bëgg iPhone rek mooy nii yee amaana numéro bi dina jàll quoi ku bëgg. ñaata la yee ku bëgg iPhone rek na ko jàllale mooy nii. waaw iPhone nga am yan xeetu iPhone nga am. iPhone yëpp ngay waaw yu xees yi jamono yëpp am nañ ko waaw. koo xam si nekkul Dakar bu ko bëggee mën nga ko defal euh, livraison. livraison lépp laay def bàyyi bu ma dara. bu fekkee bëgg ñëw bëgg déplacé ñëw fan lañ fan la la mën a fekk. fan bi nekk waaw boo ñëwee ba Colobane rek ko ma laaj xam na ma waaw téléphone yu baax laa yor ku ma jaay ku ma jaayul téléphone baaxul. <laughs> xam man man ba bañ kii ba léegi amaguma iPhone mais man damaa war a am iPhone damaa war jox iPhone. man moom su ma ne la ngay am rek da ngay am quoi. loolu bàyyi ko sama loxo barki yàlla bu ma bu ma la ko rek nga gëm ma yee moom dalay jaay iPhone boole laa cag-cagam moom mooy loolu moom day liggéey si dëkk bi quoi day def su ndaw yi gox bi quoi day jàppale ndaw ñi ñuy liggéey dafay jënd ay mbotoom cag-cag jokkoon ndaw ñi liggéey barki yàlla yee li may wax ne dafa am quoi moo tax ma wax ko quoi neexul li mu toog yee te ñun loolu moo ñu saf kuy liggéey si dëkk bi te moom day def si dëkk bi quoi nekk jeune nekk xale bu ndaw kon na ko gaay jàppale barki yàlla ku mu jaayal iPhone baaxul ku mu livrewul tamit doxul di jégaluwaat bu baax SBT Média seen émission seeti mbër ñu jëloon ki nga xam ne moom mooy Siteu bu Ngor dégg adversaire yi ñu fa wax digganteem ak Alliance Baldé la ah, làmb wax chaque jour ah, moom mooy Mbaye iPhone dégg ko numéro téléphone bi mu joxe ak adresse bi nga xam si ni képp koo xam ne fa rek incha loo bëgg ci xeetu iPhone incha allah fa fekk kon dinañ jox dig dajee ak beneen champion ak beneen daanaan ah, ci wax naa xamul mbër bu ndaw xamul mbër bu mag li xam rek waaye ah xale baa ngi liggéey li ma ko fekk mu liggéey fii ci salle bi nii du lépp laa wane sax du lépp laa jël si entraînement yi ndax am na yoo xam si nii bëggul ma bëggul ma jël ko da koo da koo dëxëñ ci biir ah leen di wax ne ngeen bàyyi ko xelu baax a baax ndax dégg ngeen ni mu ko waxee mbëru gox la ah mbëru mbëru nekkul mbaru koñ nekkul mbëru quartier ah dëkk la ah Ngor Wakaam Yoof ñoo nekk si ginnaawam kon mi ngi noonu SBT Média seen émission seeti mbër di leen ak beneen champion ak beneen daanan